non anarchiste. doctrine Sénégal wolof nañuy wax il faut que ñoom ñi ñuy seetaan déglu li nga bëgg a wax. <laughs> anarchiste ma ko wax ci wolof de <laughs> anarchiste. doctrine la. ah kon bàyyil bu sedd kon mënoo ko wax ci wolof. <laughs> mënu ma ko wax ci wolof bu fekkee mooy firi. Ah? bu fekkee mooy firi. bu fekkee mooy firi ñoo xam ne ñoom dañu jàpp ne du ñu respecté benn ordre nañu taal taal yàq yàq pour jot ci lu ñu bëgg mënul nekk Pastef. mënul nekk Ngagne Demba mënul nekk Ousmane Sonko mënul nekk El Malick mënul nekk Bassirou Diomaye mënul nekk Abbas Fall mënul nekk kenn xam lu tax parce que man fonctionnaire laa sénégalais yi moom may fay tey dama doon symboliser l'institution judiciaire ma yéeg audience flagrant di sol romb su ma paree damay rédiger une décision de justice signé nit ñi mën a dé mën a mën a jël décision bi exécuter ko mu amal ko njëriñ mu rentrer dans ses fonds wala nit koo xam ne dafa def lu yoon ñu tëj ko ci kaso may jëmmal cette république ces ces institutions là pourquoi les menacer pourquoi être anarchiste sinon kon ko ma sax choisir servir la République. Et pourquoi en tant inciter, que fonctionnaire pourquoi jeunes à mourir euh, pour défendre votre cause personnelle. on incite tous les Sénégalais jeunes vieux keneen ku mu mën doon à mener les combats pour la démocratie et pour la liberté te combat yooyu pour mener ko na nañu xam ne ñun ñëpp ñu xëy di ko mener comme ni ñuy xëy liggéey. lu nekk mën na la ci fekk comme beneen acte booy posé waxuma la ak acte boo xam ne dafa am ñuy jaay doole te ñu jox leen lee moyens yoo xam ne mun nañ la ci gaañ loolu c'est une conséquence en fait dañ ko war a intégrer sa doom boo koy yóbbu daal danga koy intégrer ci ne fi nga jëm nii nag amoo fi papa amoo fi da ngay nangu coono sa doom buy laxas di tukki da koy intégrer ci ne fi nga dem dangay ngay tumuranke kon nag nootal sa bakkan sa doom buy dem université da nga koy da koy da nga koy yëpp ci ne fi nga fa fi nga dem boo compétirul boo góorgóorlu ñi ñi bàyyi la ginnaaw de la même façon kuy xeex pour démocratie ak li ci mun fekk da nga koy yeb ci ne lu ne mën na la ci fekk mais nag gëm yàlla tax ak principe ak ay valeur tax nga koy xeex te li ñuy ñaan mooy lii tax loolu di am bañ am. parce que encore une fois ban intérêt la amal Ousmane Sonko franchement mu naan kaay leen ñu wàcc kaay leen ñu nangam kaay leen ñu nangam ñun d'accord duñ ci lii waa Pastef te ñun ñu ñu koy wax am famille ñun yu bëri si ñun mu jural ñu kaso ñun juralagul kaso leer na leen ne jour man mii wóor ma bu ma ñëwee ba xam dañ ku nekk ñi yor seen liggéey bi mun nañ leen ci dàq mun nañ leen ci affecté ñu koy def te amul sans raison non mais c'est parce que yàlla moo ñu mooñee te gëm naa ne moo nekk ci xolu yëpp mais am na ñoo xam ne yeewoogul seen dënn que ñun mënuñu nangu nooteel que ñun mënuñu nangu suñu propre réew ñu takk ñu fi buumu jàmm que ñun mënuñu nangu ñu ñuy fay salaire deux millions trois millions nga nekk ci condition yu baax yor ay fonds commun yor ay indemnité nekkul sax foofu la toll dama exemple mën a dawal oto mën a contracter prêt pour tabax kër te mën na nekk nga tabax sa kër di xëy di liggéey comme fonctionnaire ñi àtte ñi di leen tëj sa kanam te nga xam ne réew ma teguwul ci yoon benn groupuscule moo ko yor jël alal bi di ko foowee jël réew mi di ko donnante ku mu neex ñu jox ku mu neex nga jox man su ma dundee ci réew moom aw ma dignité tant que xeexuma loolu fu mu yem neex te jalal na ma lépp